asalaamaaleykum mbokku sénégalais yi asalaamaaleykum mbokku gambien yi asalaamaaleykum mbokku euh, africain yi déglu rajo defaral suñu bopp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen wax na wax dëgg yàlla dañoo jëloon vacances nekk fii ci. sud d'Italie ci Puglia fii ci dëkk bi ñuy wax San Severo yàlla def wax dëgg yàlla mu nekk place bu ñu sopp ndaxte euh, ay doomu africain yu bëri ñu ngi fi nekk kon nag mbokk yi lii moo tax euh, déglu le euh, bés yëpp déglu leen déglu leen rajo defaral suñu bopp dañoo ñëwoon pour noppaleku waaye nag wax dëgg yàlla rajo defaral suñu bopp du rajo boo xam ne mën na tànqamu nit ñi ndaxte nag nit ñi suñ koy déglu soxla ñu wax dëgg yàlla euh, li ñu war a def rek mooy liñ ci mën a jéem rek jéem ci soo déggee may wax loolu mbokk yi moo di ne euh, bërkaati démb euh, avant loolu sax defoon nañ fi émission wax problème yi nga xam ne la ay mbokk di am ci aéroport yi muy Rome ak Milan euh, bañ waxoon ci ne problème yi nga xam ne suñ mbokk yi nga xam ñoo dëkk Cagliari te am ay problème ci sen séjour yi jeex yi ñëw ci aéroport yi ñu leen di bloqué di leen di delloo wax dëgg yàlla mu nekk mbir moo xam ne bu métti la ñu nag mbokk yi dañuy wax waaye dinañ jëf ci liñ mën mbir wax mu ngi doy ndaxte Euh, waxtu wi nga xame ne dama ne xaaral ma tëj suma téléphone noppaleku ci laa jot benn message bu jógee dakaar suñ benn xameel bu nekk foofu di yëngu ci mbirum immigré yi koy wax Lamine Gueye yónnee ma ci messenger benn message ne dafa am xale bu jigéen boo xam ne dafa demoon Sénégal ndax yaayam moo génnoon àddina far tombeek Covid bi mu bloqué wu fa jël avion barkati demb pour ñib si Milan ñëw ba aéroport Milan foog naa ne sax dëkkul Milan mu nga dëkk ci sud ba foog naa Bari la dëkk ñëw ba aéroport Milan ñu ne ko yow da nga toog plus de six mois bitim réew te amoo ci droit su watul dañ lay euh, delloo message bi laa jot ci suma téléphone kooku nag euh, Lamine Gueye mi mi ñu ko yónnee nekk xarit xariti papa xale bi bi ñu ko yónnee wax dëgg yàlla suñ yaram daw parce que nag euh, ku sa waajur génn àddina nga dem Sénégal di ñëw ñu ne la dootoo dugg ci réew mi te fii la sa lépp nekk lu ko gën a métti amul ci noonu lañ bàyyi lépp suñ soxla euh, yónnee suñu mbokk suñu frère

attirer yéen sen attention ci mbirum aéroport yi parce que yàgg ngeen xam suñ xeex ci jàppale doomu sénégalais yi doomu africain yi ci aéroport yi euh, depuis 2016 suñ doom yi nga xam ne ñoo bloqué woon Sénégal te amoon liñ ci def demoon ci aéroport liñ ci mën a lim wax dëgg yàlla bari na bi ci mujj xam ngeen ko mooy <laughs> Euh, ci mois d'août daaw ci gars yi doon voyager ñu bloqué leen aéroport waaye chaque année lu mel noonu rek xam ngeen ne day am fii ci réew mi man ak maître Ndiaye nag euh, cas yiñ ci dox ci weer yi nii ci année ci mois yi wax dëgg yàlla léegi mu mot vingt yii yàlla may nañu ci ay résultats yi wax dëgg yàlla suñu yéene yàlla motul ko Euh, xale bu jigéen boobu wax dëgg yàlla biñ ma ko jotee démb ci bërkaati démb ci guddi laa o oh, maître Pam Ndiaye yónnee ko dossier am ne na ci gaaw jóg ndaxte euh, ay waajuram dañ nañu woon le 21 euh, août lañ ko waroon delloo yàlla def na maître Pam Ndiaye moom it vacances la nekkoon mu bàyyi yëpp yow doon yóbbu doomam mu ne dem vacances mu bàyyi yooyu yëpp dellu biroom bind ay neko am ko aéroport Milan ba démb ci ngoon la ko commissaire bi oo ne ko xale bi dinañ ko bàyyi waaye nag euh, comme xale bu jigéen la te dëkkul Milan il faut mu am ku ko jël si ci noonu ci guddi gi le maître Pam Ndiaye taal otoom dem ba aéroport jël xale bi wutal ko fu mu fanaan benn hôtel bu ndaw boori këram fii ci Milan mu fanaan fa mu yeewu suba te jël ko dugal ko yow dugal ko train mu ñibbi ca Bari mbokk yi lii suñ koy nettali wax dëgg yàlla du dara di insister rek ci la ñuy yàgg di wax que taxawu doomu sénégalais yi doomu africain yi ci aéroport yi lu war la lu war la encore lu war la luñ ñu war a def la ñun ñëpp bokku ci parfois nag ñun ci suñ communauté bi dañuy wax mbir rek te duñ ci agir wax naa leen ne ci at beeg genn wàll liñ ci yëngu ñun ñaar man ak maître Pam Ndiaye ëpp na vingt personnes man duma avocat ci mbirum immigration lay liggéey mais mais Pape Ndiaye wax deug yalla tan xamanté depuis bima duggé ci réew mi association sénégalais de Milan yalla def muy jang ba nek avocat wax deug yalla duma wax ni koku duma ko yemalé ak yenen avocat ndaxte n'ak intervention ci aéroport yi yagna ci yëngu yenen avocat italien waye yek bi nga xamné avocat bi nek doomu sénégalais yek bim ci am ak yërmande bi mu ci am même su fekkee ne dañ ko war a fay liggéeyam mais yërmande ba mu ciy boole wax dëgg yàlla du yem ak avocat tubaab bi kon nag wax dëgg yàlla li ñuy continuer di wax euh, moo di ne tutelle aéroportuaire de migrants yi lu war a taxaw la te ñun doomu sénégal yi ñun doomu Gambien yi Euh, war nañ ci gën surtout ci moment parce que plus de six mois rek ñu ne la sans compter période du Covid bi parfois euh, euh, su amul rek dañ lay parax parax Sénégal te pour nga recours dina jël ay ay su Italie sax ko bëggati ndax te le cher loolu lay indi e, tey di leen wax ne ñu ngi ciy gërëm suñ frère maître Pape Ndiaye te man ak moom comme ñu ngi ciy liggéey depuis presque at ak genn wàll li nga xam ne war nañ ko e, e, wax mooy taxawal loolu ñuy wax tutelle la aéroportuaire ndaxte nit ki dina yegg si 6 heures du matin ñu sonal ko lu am la lu xew la parce que jotna fi appel 6 heures du matin nit ki dina à 2 heures du matin ñu sonal ko ci aéroport bi lu am la nit dina ci week-end bi ñu bloquer ko ci aéroport bi lu am la te su taxawul gaaw taxawul rek taxaw su amul wax Il yalla day un euh, danger pour lui pour ñu de ko euh, rew Sénégal du du du du xanaa day fekk rek yaakaar bi nga amoon fii ak relation yi nga fi amoon suñ la delloo Sénégal wax dëgg yàlla dina am peut-être choc loo xam ne découragement dina ko def ci nit ñi te loolu nag mbokk yi dañ cee war taxaw ñun dañ ciy wax waaye récupération li ñuy wax récupération dafa bëri ci suñ communauté bi parce que problème du ay wax rek mais ay jëf la du ay critiquer du ay dénonciation mais ay jëf la jëf boobu nag laay oote Sénégalais yi di leen wax ne man ak maître Pam Ndiaye dinañ ci taxawal benn service li italien di wax AK 24 muy 24 heures sur 24 surtout nag service de réponse téléphonique pour mettre en rapport euh, avocat bu mën taxaw seen mbir loolu nag wax dëgg yàlla ñun en tant que rajo defaral suñu bopp daf ñoo war.

mooy nak suñ koy wax wax deug yalla suñ xel day dem ci suñu autorité yi yo xamné li lu waroon am ci ambassade yi ak ci consulat yi waye comme amu ci te ñun défaral suñu bop lañ wax dinañ ko jéem taxawal ba noppi tàllal suñu loxo kep ko xamné war nga ci mëna japp jàpp ndaxte nak ay moyens lay laaj des moyens personnels de en personnel waye aussi des moyens financiers pour que liggéey bobu nek lu systématique parce que mbirum loi dafa xat te nit dina jël benn décision surtout nag ci autorité policière yi yaakaar ne ñoo am raison fekk ne dañoo juum te kiñ ko ki nga xam ne mooy victime bi balaa muy jotaat ay droit am day métti ndaxte kii su amuloon taxawaay muy xale bi du ma wax turam ndax question privée la su amuloon taxawaay ni kon dañ koy delloo am na ñeneen ñoo xam ne dal na leen malheureusement surtout nag ci période Covid bi li may jeexale rek mbokk yi moo di ne yéen ñi nekk Sénégal te seen séjour jeex ngeen yàgg fa gaaw leen ngeen jël seen matuwaay su ngeen ñu contacter dinañ ci waxtaan ak maître Pape Ndiaye euh, xool lan lañ ci mën préparer ndax soo ñëwee ci aéroport bi ñu bloqué la ndax réaction rapide dina mën a am. kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon di leen wax ne ñu ngi vacances waaye nag veut pas dire que suma téléphone sax parce que lu mel nii bi peut-être duñ ko yëg te peut-être xale boobu dina nekk ci coono euh, ju métti wax dëgg yàlla ay parents bu nekk Sénégal Lamine nga ne moo ñu contacté ay félicitations naam gaa ci parce que luñ la war def di am yaakaar rek ne euh, euh, euh, dinañ ci taxawaay bi dina ëpp sax suñu suñu jëmm ji ba nekk loo xam ne day nekk du law parce que immigré tukki la te ci tukki problème yu nekk daf cee mën a feeñ kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon tey di leen wax ne wax dëgg yàlla ci mbirum sama sanatoria prévoiroon nañ def ci benn élément conclusif conclusivo ci italien un élément conclusivo mais jàpp rek ci ci <laughs> noppaluku ak di am yeneen yoo xam ne dañ koy répondre ci téléphone waaye ñàkkul ne dina ñëw gën cee indi waxtaan mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaan euh, ñi nekk ci vacances yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm suma xel mu ngi dem ci suñ doom aji sàmbeng foofu ca Imola la ko dal ca Rimini metti nañu wax dëgg yàlla ñu ngi koy jox suñ solidarité lépp ndax dem ci restaurant ak ay famille tubaab ba leen servir tourné naan photo Mussolini baal ma àq yow Mussolini baal ma àq ndax maa ngi servir ay nit ñu ñuul muy un facteur un un fait de racisme fait de racisme boo xam ne wax dëgg yàlla taxawaay bi du dara lu dul porte plainte ca carabiniers yi ba nopp topp ko ci tribunal yi parce que beneen yoon amul beneen yoon pour xeex contre le racisme contre le racisme ñun da ngay dem ak ñoom ci yoon ndaxte fayeeku ak xuloo ak saaga soo ko defee sootul da nga am raison bu mujjee tort kon nag euh, toute notre solidarité à notre fille Adji Sam Mbengue ca Imola moom ak petite sœuram Fatou mbeng nga xam ne fee boobu moo leen dal mbokk ñu ngi leen di nuyu lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf di leen ñaanal jàmm di leen wax bonne vacances et bonne reprise jërëjëf